Serigne Mansour Sy Djamil daal dinay xamle rek ni moom moomee dafay jot ay menaces de mort niki rek ba ñuy daal di waxtaanee li nga xamante ne si nag moo di wàllum organisation gàmmu Tiwaawan li nga xamante ne si nag moo di wàllum ndox mi ak assainissement bi nekkul loole rek moo nekk seen ay préoccupation wante it wàllum kaaraange bi doon na la nga xamante ne si soxal na leen lool ca question yañ doon waxtaanee nag foofee ca réunion bañ doon amal ci préparation gàmm gi te ki nga xamante ne si nag moo di ministre de lente intérieur di Antoine Diome daal di koy teewee kii di Serigne Mansour Sy Djamil daal di nay xamle ni moom moomee nag victime la ndax nag day jot ay menaces de mort ba tax sax nag muy wax ki nga xamante ne si nag moo di ministre de l' intérieur di Antoine Diome mu daal di rek gën a renforcer li nga xamante ne si moo di sécurité bi kaaraange bi ci gàmm gi buñ sukkandikoo rek ci waa RFM bi fësale bila xibaar. tab tab seen.